Boubacar Camara muy le président Boubacar Camara mhm. bu ñu fàttee woon moo nekkoon directeur de campagne Ousmane Sonko ci 2000. en ci jot na bi mhm. kon la mu doon gëm ak la mu doon wax ci 2019 tey mi élection yii ñu jëm melul noonu dañu waxante dëgg rek te yàlla tax. Ah parce que un candidat boo xam ne ne mooy candidat idéal ci réew mi di tamit chef de l'opposition muy Ousmane Sonko ñu bañal ko mu bokk ci candidature loolu moo dul dëgg. te yoon amul fenn fu mu ko def lu définitif ba par ñu gisaat ñom candidat yi di wër ñaata nga dégg candidat yi ñu ñu ngi leen arrêté ñom Malick Gakou ak yenen leader yi. Mhm. fu ñu genn ñu dem euh, arrêté leen ne leen amo leen ki ñu traité amo amoo leen euh, laisser passer nangam nangam te légui mom euh, Amadou Ba mi moom du wër mu ngi wër di dem fu ko neex. en tant que premier ministre. en tant que premier ministre ah, mais en tant que euh mu traité candidat présidentiel Benno Bokk Yaakaar lolu dans les normes mom bu dee dafa ñeme tam fit day déposer lële bàyyi lële ànd ak gaayam yi ñu wàcc ci terrain bi xam na ne moom candidat la comme ñëpp du jël benn faveur parce que bu ñu jàppee nee tey fu muy dem déplacé wu ku ñu koy recevoir gouverneur préfet luñ ko neex ci côté politique mun na ko utiliser loolu moo dul dëgg loolu la xel mën na ta nangu te loolu moo nekkul yoon Dieu jël seen moyen na moyen comme nous ñoom Ousmane Sonko di def ak yeneen liggéey ses moyens, sait moyen wàcc ci comme ñoom nous nous ñuy def sait ses propres moyens mais doo jël moyen état bi ne pour koy des ne da ngay def euh, nu économique ak tournée Nous ñuy dafa nous tourner économie. Nous ñoom économie bi yow lekk nous ko nous économie bi économie amu fi ay boroñ Nous topp ñun nous boroñ yu nous ci nous jafe nous subvention nous sax lañ wax dañ nañ ko nous, nit ah Sénélec beeg ñëpp a ngi bëgg a dee courant bi ndox bi dund gi lépp ñu ne économie lu ñu économiser ñoom économie bi yëpp mu ngi seen kii yi. mais lan moo tax nga ni Boubacar Camara kàddu yi mu doon liggéey ci 2019 bi mu nekk directeur de campagne Ousmane Sonko ak tey jii taxawaay bi mu am na wute. waaw xam nga la amul wute de cest à dafa dafa jàngat parce que dafa gis ne élection yii ñu jël. lépp lu war a yenu maanaam dafa dafa amul yenu maanaam. maanaam da nga bëgg wax ne kon Boubacar Camara logique bi mu nekkoon en 2019 ci la nekk ba tey. ci la nekk maanaam bu lépp tegoo ci yoon dans les normes élection bii ñu jëm mooy élection bu gën a jaxaso bu gën a lëj ci élection yu mës a jëm nañ waxante dëgg rek yàlla tax maanaam ba léegi yow tey ba 4 mois munoo wax na ne kenn candidat la 2019 ñëpp xamoon nañ ñan ñooy candidat même bu ñu rëkkalee woon tam euh, nu mu tuddati bu ñu waxoon ne 5 ay am.

loolu dañ moo wóor moom ne mooy candidat keneen ku dul moom munoo wax na ne di nga doon candidat am na doole am liñ ko laaj waaye ban doole ban doole ban doole am parrainage ban parrainage ban parrainage lañu wuti ñoom parrainage bi ñuy am nii nan lañ ko moom la opté dee eh, dee bu citoyen xam nga noo koy wutee da ngay ñëw laaj nit ñi seen carte d'identité ñu joxe ko si seen cëggalu guy mais ku bëgg financement ñu jox la nga joxe sa carte d'identité loolu du parrainage du euh, maanaam loolu du volonté nit ki wala tey barki démb xam nga lu ñu ma wooyee ca ngaay àll bi xam nga lu ñu leen di wax ñu bëgg douche toilette ngeen baal ma ci kàddu gi toilette kër gu bëgg toilette jox leen ñu seen carte ñu defal leen toilette kon kay yéen toilette taxatu doon ngeen def. carte d'identité loolu fan lay amee ñu ne ca ngaay ca àll ba dañ ma woo ay nit ma ko ay nit leen ay douche. xam loolu bi ñu ko waxee vérifier nga ko ba xam ndax lu am la. Ah, exactement ñama ca woo kañ dama woote. quand xanaa du ma xale nag dama woot ay nit. ay kilifa ñu confirmer ko ñu confirmer ne ñoom sax seen kër ñu dugg nañ fa di leen ko laaj pour ñu defal leen ay toilette toilette loolu loo def war a ko def muy sa devoir lu baax lu ñëpp soxla nga mun ko def tax wala nga mun ko def ngir yoon na mais ko ci. mais. Euh, tey yaa ngi wax ne Boubacar Camara na mu wax ki nga xam ne sax Euh, moo ufoon Ousmane Sonko nekk directeur de campagne am ànd ak moom ci élection yi ba mu jeex. effectivement euh, tey jii mu nekk un candidat comme Ousmane Sonko. Mm-hmm. à la candidature. Mm-hmm. Euh, jàng li mu wax noonu. Mm-hmm. nekk loo xam ne mën naa taxaw quand même def taxaw seetlu bàyyi ci xel bu baax a baax. yow kàddu yooyu ban ban jàngat nga ci am au fond. waaw jàngat ji ma ci mooy jàngat honnête honnête rek nit ku honnête. parce que candidat la. est ce que nekk na luñ luñ mën a luñ mën a xaar. non luñ mën a waxtaan mais bien sûr lu jar a xaar la. lu jar a xaar la parce que li ñu nii demee parce que moom bu ko neexoon comme candidat la comme ñeneen ñi mu ne bokk rek laa bëgg naa bokk rek xam nga am na ñoo xam ne nee nañ naan nañ bokk rek mais moom waxul ne naa bokk de dafa ne li mu gis nii ci politique bi ak ni ñu bëggee xañee ay candidat ak ni ñu leen di ak ñeneen ñi nga xam ne leen lu leen neex ñu def leen ñu bàyyi leen ko loolu gis na ne condition yi war a réunir pour ñu dem ci élection yu transparent moom d'accordu ci dañ ko nañ ko seet nuñ ko mun a jooyante ba puusaat ko loolu xel mën na ko nangu waxoon nga nag loolu yam mais li ñu gis nii wax dëgg yàlla ci élection yoo xam ne ne même ku gagné doo am légitimité. d' ah accord ah waaw waaw fii ñu toll ci politique ku gagné doo am légitimité parce dañoo xañ ay nit parce que tey tuuma ko Ousmane Sonko nga xañ ko Ousmane Sonko. waaw xañ ko ñu fi benn dama ne waa mais am na tey candidat Ousmane Sonko mi nga xam ne ñun mooy suñ moom la ñuy jàppale muy suñu candidat.

ku ko weddi wàcce ci tali bi comme moom gisoo amoo amoo amoo déggoo fi ay candidats yuy ne ne eh, dañ war a bàyyi ñëpp parrainage yi ñii waruñ wuti parrainage yu citoyen dañ war a jël seen parrainage yu député ku la neex jëlal parrainage bu la neex boo jëlee bu citoyen citoyen boo leen doyee ñu jox la te gis nga ba ndigal jibagul bëri na ñoo xam ne ne balaa ñuy am candidat balaa ñuy am euh, parrainage dinañ sonn de ñu ngi dëgg ci bëgg ci dëkk bi di wër fu nekk mais cin bokkul cafin ay waa ji wàccoon ci tali bii bu Ousmane Sonko wàccoon ci tali bii wala ay nitam wàcc rek ne soxla parrainage ah kon ñu xam ne lépp dëgg la ki ko mën ak ki koy jéem bokkut du ñoom te duñu moom. alors lan moo tax kon tey ba ni ñu toll nii euh, ci biir Pastef ñu gisoon fi au moins quatre candidats yoo xam ne retiré nañ seen fiche de parrainage. waaw euh, léegi sax ñu ngi waxtaanee mbiru Amadou Ba mel ni moom moo nekkoon mandataire bu Bassirou Diomaye Faye. effectivement retiré fiche de parrainage. effectivement lan moo waral ba tey jii nii. Euh, ñooñee malgré ñoom jotoon nañ seen fiche de parrainage depuis le 27 septembre ba léegi. Mhm. amul kenn ci ñoom koo xam ne. Mhm. wàcc na ci terrain bi ngir wut li nga xam ne euh, mooy ay parrain. waaw loolu nag kenn ku nekk da nga koy jox cëram ñawuti seen droit la comme ni ñu ko waxee woon parce que dañu ne euh, janax day bëri pax parce que comme gis nañ côté bu nekk ñu ngi leen ci ñu ngi ñu ciy koñ dinañ seet yeneen pax yoo xam ne dinañ ko mën a def te mun ci am sunu parrainage loolu sunu kii la léegi li ci des ñoom ndax wàcc nañ ci terrain wala wàcceguñ ci terrain bi li ñu bëgg ak lu ñu gëm mooy sunu candidat benn lañu ñu amagum muy Ousmane Sonko moom la ñuy jàppale. de mën nañ ci jànge jàngatee plan B li ñu retiré ci fiche de parrainage ak li nga wax nii moom la amagum. lan la ñu amagum. Ousmane Sonko ngeen amagum comme candidat. moom lañ bëgg te moom la ñuy jàppale ba pare. loolu sunu bëgg-bëgg la. léegi nag buñ ñu xañee ba xañ ba yegg ca cappaandaw ba lépp lu ñuy décider ci loolu ñun suñu cëggalu guy la du cëggalu guyu kenn de yoonu kenn nekku ci. mais ñu retiré seen fiche de parrainage ba léegi ne tekk tekk ah waaw mais loolu nag xanaa ko retiré fiche de parrainage. waaw léegi waaw léegi nag ñooñu da leen di woo nga laaj leen. non mais yow yaa leen fi teewal. déet ma leen fi déet déet. yow déet teewalu ma leen fi de man ki ma teewal mooy Ousmane Sonko.

Euh, da nga tactique la tey mhm. euh, maanaam ñooñu seen fiche de parrainage dañ ko denc di xaar. ah xaw ma de ki nga xam ne mooy xaw ma de du ma wax lu ma xamul. xaw ma dañoo denc xaw ma dencu man ñooñu moom ñoom nga mën a wow man daal li ma xam. Mhm. mooy ñun suñu candidat Ousmane Sonko la te moom la ñuy jàppale. ba dernier mot lui revient ne la defee leen nii waxee leen nii parce que moo ñu doy xam nga nit ku nekk ki la doy. Mhm. parce que nag ku def lu ku wax lu nu kenn ñemut a am lu kenn amut du dëgg. abdou djoudi moy ne ku def lu reuy am lu reuy ousmane sonko mo def lu reuy wax lu reuy lu ken ñemu tawa kon nak momit amna lu mëna ken amut lolu motax ñukay deglu dañ koy deglu rek waaw waaw alors reste à voir xeyna fan ngeen di mujjé ak waaw waaw fu ñu mëni mujjé rek inshallah ni ñëpp téy seen carte yi rek di xaar ndigal gi ndigal lañuy xaar rek ndigal d'accord euh mais Euh, mhm. mm, ñu ngir ñu terminer ak benn benn sujet rek loo xam ne gis nañ ko mu am semaine bi mhm. euh, fële nga xam ne moo di moo di Kaolack un mhm. présumé homosexuel euh, boo xam ne dafa wàccoon liggéey ñu daal di ko denc ci ay armel gis ay ndaw wala ñenn ci waa gox ba dem ca ca ca armeel yooyu daal di koy exhumer maanaam daal di génnee kooram effectivement génnee ko daal di koy taal bindu lu ko vif doole yow bi nga yëgee xibaar bu ni mel ban impression nga ci am. waa impression bi ma am mooy euh, xam nga man euh, ci mbiru Ousmane Sonko bi laa ibbee benn mouvement man may président mouvement mooy yërmande. Mhm. xam nga lu tax yërmande yërmande bi moo ñëwaat ci taal bi ngay wax gis nga sénégalais. Mhm. bi ma gisee Ousmane sonk tëdd ci lalu hôpital sonn ci première grève de la faim bi nit ay nit ci waa Benno di dugg ci télé yi ci euh, di maanaam dem ci. télé yeeg rajo yi di ñaanal Ousmane Sonko mu dee ci laa ne nit soxor na nag léegi. yërma ah am na fi kañ ci ay nit kañ. waa Benno yi kañ ñuy wóor di ci palaato yi ne dafa war a dee benn ci Moustapha jaxase benn ci Moustapha jaxase mi jaxase réew mi moo fi wax carrément dañ ko dafa war a dee. ah bon ah, waaw loolu am na fi. ah am na fi gis ngeen ko dégg ngeen ko. yàlla bu ñeeg ñoom Suzanne di wax ko Camara di wax ne ne kii dañ ko war a rey pour ñu am jàmm. te loolu yëpp ci nit ku feebar te mu war a droit am opposition di opposé waruñ ko ñaanal pour mu dee kooku waruñ ko ñaanal kenn kon ma jàpp ne ne ñàkk yërmande boobu xam nga la ko indi man li ma gis mooy impunité bi nga xam ne ne moo yàgg a dox xam nga nit ñi dañoo jàpp ci man dama jàpp ne ne ñi la leen merloo duñ ko wax de. xam nga li ñu def kenn nanguwu diine nanguwu ko parce que l'islam du diine boo xam ne day taali ay nit wala di lakk ak yooyu loolu xalaatuñ ko mais la indi loolu ci réew mii lan la mooy gis nga impunité mooy lu teguwul ci yoon day yóbbu nit ba mu def loo xam ne ne boo leen laajaatoon sa ñu ne lii bëgguñ ko woon def mais lu tax loolu maanaam loolu nag lañ war a wax loolu lañ war a xeex xam nga lu ñu war a xeex comme li ñu wax ne taal nañu baaxul ak baax xam nga lu ñu war a mhm. yoon boo xam ne ne ñëpp la fi nekkal ku def lu dul yoon ñu teg la ci yoon comme ni au moins maître Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee am na ay nitam yoo xam ne ne bañ leen yuuxoo ci sàcc wala nangam nangam dañ leen jàpp yóbbu leen tëj leen bu ñu ko defoon fii ci mbiru buuru sàll bi dina am ñoo xam ne ne boo yóbboo nit ci yoon sa xel dina dal parce que da xam ne ku teguwul ci yoon ñu teg la ci yoon kon lii yëpp ci am man jàpp naa ne pe impunité boobu. moo gën a waral ak ñoo xam ne ne dañuy jàpp ne parce que ñoom dégg naa sax ñu ne de euh, yoon moo may pour nañ ko suuli jéeg bañoon nañ sax ne buñ ko suul fii nañ ko suul fële ñu dem sax bañ ne ay euh, nu euh, ci ko waxee boog xaw ma ci lu ma leer mais dañ ay alkaati ak ay sàppal ñoo dem suul ko du loolu lañ wax kon mayoon nañ ko faveur boo xam ne ne waruñ daanañ ko may ñeneen ñi xam nga loolu yëpp nit ñi dañuy jàpp ci yenn nit ñi dañuy jàpp ne ne ba léegi ñii dañuy may ñenn faveur ñaka a may ñenn faveur té lool yépp li waral moy miru yoon gis na yoon billahi bu né lépp na mais ya nga wax yoon. te lu baax la fi nga commencé. Mhm. Euh, dafa nekk lu am solo ci mbir mi effectivement humanisme. ah wa bi. doomu na doomu tay nit ku dem ba génn aduna ah denc ay nga waxuma le sérieux mais lu comprendre la. mais lan moo yóbbu nit ñi ci bobu ki maanaam ci bobu hen lan mo ci yóbbu nit ñi impunité lolu je te le dis gis nga ku waxal yalla li ko yobbu nit ñi impunité bokku na ci kenn du ko rafetlu de kenn du ko nangu nak mais da ngay sentir lan mo pousser nit ñi ba pare ba pare bañ koy taal da nga dégg sax ñi di yuuxu di contane xoolal degré boobu nag lu metti loolu nit di ko def nit wala ku de wala nangam nit ñi di contane kon lu ko lu ko lu yóbbu nit ñi ci soxor googu lan moo ko yóbbu nit ñi loolu lañ doon poser la question question boobu nag mooy impunité man sama gis-gis ci man loolu laa jàpp lam xam nga nag ku nekk ak sa analyse. Mhm. nit ñi mën nañ wax lu nekk ak nekk nañ fi mais man jàpp naa ne li gën a yokk yenn soxor yi mooy impunité. kon yow lan nga war a jàpp ne moom war a nekk taxawaayu kilifa yi ngànk réew mi. ñuy xam nga seen taxawaay pour que plus jamais ça. waaw plus jamais ça. que tamit képp ku def lu warul gis nga même tey ñii ni booy yi ñu ne ne dinañ comme dégg naa ñu ne euh, am na ko autosaisir wu kilifa gi nee na autosaisir la pour ku def loo war te def ñu jàpp la ci man loolu dina yokkaat xar mi karaw ah, ah man de bu doom sama sago dañuy teg lépp xool képp ku ci def loo war te def ñu teg la ci yoon ba pare defaat ñeneen ñoo xam ne ne def nañ lu mel ne moom wala lu ne mel ne ñoom ñu teg leen ci yoon. waaw ah loolu lañu wax parce que le procureur a ouvert une enquête. waaw disant que dinañu top mbir mi ñinga xamné ño def euh, ces actes muy qualifiés de barbarie. waaw waaw mais buñ ko yemalé ci ñoñu la bëgg wax gis nga ko lu rafetul. Mhm. do ko yemalé ci ñenn rek dafa am yeneen yo xamné ci yeneen nit ak ci yeneen côté dañoo def lu mel mbiru barbarie tay xana loolu gis nañ ko fi ah jappuñ fi ay néri wala gisuñ fi ay néri ñooñu do acte barbarie wala loolu acte barbarie looloo tax ma la ñoom ñëpp képp ku def lo def dañ la war a ci yoon bu ñu ko defee keneen ku nekk di nga kon jusqu'au bout c'est vrai c'est bien mais aussi tamit bu demee jusqu'au bout na dem ci côté jusqu'au bout.